mais far parfois nak ma gis ci lo xamné wax dëgg yalla sam dégout quoi dama yalla nag ngeen baal ma ci cadeau yi mais mm. parfois nga gis Sénégal lo xamné ne vraiment ça motive pas en fait ça mm. daf lay dafa naan mais mais c'est quoi waaw c'est c'est mm. quoi le problème en fait pourquoi yow boo yoré bo nek animateur tu dois promouvoir la musique sénégalaise da nga wara jël artiste bi nga xamné ken kenn xamu mm-hmm. nga jël ko ñepp xam xamlé ko mais je salue vraiment DJ Boubs il l'a fait DJ Boubs moom chapeau à lui. Mm. il a fait ben carrière bo xamné ne non kenn du ko wax àccam. Mm. parce que fii ñu fi siw ñep jaar nañ ci moom. Colosse, mm. Sidat Thioune ah ak euh, Michael Souma Bari na ay ndanan yo xamné ne billaay ñoo ñoo ba artiste ñu xam leen sénégalais xam leen mais en ce moment là man ce que je suis en train de voir non mais c'est c'est c'est extraordinaire man xaw non en fait animateurs yi am na ñu ci baax am na ñoo xam ne ay ay ay cool gaañaan leen am na ñoo xam ne ñu ngi def tout pour possible man ñu ma ci xam vraiment du ma lim nag du ma wax benn tur mais am na si ñoo xam ne vraiment non c'est c'est c'est autre chose alors ni loolu ñoom lay yàqal ñoom ñoo yàqal ñoom ñoo war a promouvoir les artistes man dama nekk nit koo xam ne damay mën naa dem proposer la suma musique mhm. ne la lii laa liggéey tegal la ko def la ma ci war a def yëpp mu def mais pour man gor su nekk gor la. Mhm. am na loo xam ne tamit digg yàlla man mënuma ko mhm. waaw mënuma ko parce que man mënuma comprendre en Europe tv cinq Monde tv cinq mhm. dañuy rechercher YouTube. gis nañ la fa TV5 Monde euh, ñuy def émission ñëw dem YouTube.

journée la ma journée té émission télé rek la té man bamay may door tamit loolu dalon na ma mhm. il faut vraiment animateur yi euh, prenez les choses au sérieux mhm. s'il vous plaît ngeen jappelé artiste yi muy ñu ndaw ñi ñi mag ñi tout le monde jël leen ñëpp ngeen xamné tamit liggéey bu la yàlla jox mhm. muy musique muy animation bu mu mën ci doon ah jaamu ci yàlla jaamu ci yàlla yéen tamit yéen a war a xeex loolu parce que yéen tamit seen yéen yéen yéen yéen sekk musique bi gaa yéen a bokk liggéey bi mais yéen yéen def li nga xam ne moom mooy li ci ëpp ci liggéey bi ndax yéen yi waroo leen jóg aussi daal di xeex loolu peut-être def def dara loo xam ne def dafay dafay dafay def ay norme ci li nga xam ni moom mooy animation bi ba da mën a teg kii teg ku nekk ñëpp gis ci seen bopp non man loolu moom wax dëgg yàlla xam nga ñoom seen liggéey la mm. en fait nit ki doo ko jàngal liggéeyam mm. man je dirais wax non do len jangal sen liguey mais bon da ngeen di da ngeen di def lo xamni ñom dinañ mën à chaque fois di régulariser mbiri ba ku nekk di ci mëna gis sa bop wa mom la lay wax ni lolu xam nga amna lo xamne xam artiste mënu ko artiste mënu nekk au foulé au moulin di di lijeenti non lolu mënu ñu mënu artiste mënu ko ben artiste moko mën. ñom kay ñom mëna comprendre équilibrer les choses man du je parle pas pour moi man am <laughs> problème bobu man il euh, y a pas de souci en fait. dinaa def la ma war a def mooy li ma wax dinaa def la ma war a def yóbbul la sama produit woo la téléphone wax ak yow def ak yow li ma war a def yëpp en plus on de très bonnes relations genre man awma ci kenn xarma yàlla man Sénégal gii de A jusqu'à Z awma ci kenn ak problème fii awma ci kenn problème muy animateur di artiste jàpp jàpp ko de jàpp ma ko na xam am naa ci nag yoo xam ne door nañ ma ay kurfañ hmm. su ma nee door nañ ma ay kurfañ amna na luñ ma jotta def ci milieu bobu non kan? lu metti lu metti lo xam def nañ ma ci kan? mais je me dis que ni c'est mon c'est mon c'est mon chemin non jarul du tur du tur parce que parce que boko ko ñu ni buzz la tu tu cherches du buzz non non non non jaru ko won jaru jaru ma koy expliquer hmm. wallahi zim et pour man lolu dang kay dang kay may sax mom lu

mu fay ma xaalis xaalis bu bëri mu fay ma ko lii lii laa lay fay ok man ma sañ sa ba jekk dem ci ngénte gi ma dem bay waaj a dugg rek mu am ku intervenir ne man du fi dugg lu tax parce que voilà du fi dugg quelque chose comme ça xam nga aw ma musu xaw ma leen sax ku jigéen ki rek laa xam xaw ma leen sax mm. ma ne ah problème man tamit fu laay jaay Dakar ba dem taxawendale ne legi léegi contrat bi for <laughs> gi dugg rek amul hmm. problème man toute façon damay ñibi amul problème sama auto gi ne leen damay dugg dem ñibi léegi na for gi dugg rek <laughs> ñu fay ba ma dem et eh, la vie continue kan non je cherche billahi je cherche même pas à savoir ni comprendre hmm. man xamna del dal la xam hmm. que man musique la am moy suma lepp jaxane wu mako fewu fewu mako te buma la waxee bi bii cachet nga may fay